recours bu gudd eh, ñeel njëriñal conseil constitutionnel ak itam jaar-jaar bu am dayoo bu kii di Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly ci la kii di président conseil constitutionnel yëggale prestation bu serment ci ki nga xam ne moom mooy mottali conseil bi le moment est venu na ngeen wone seen xarañteef seen ma xam ngir njëriñu askan wi Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly mën ngaa jóg taxaw conseil constitutionnel dina jot sa waat. va recevoir votre serment. maa ngi waat ni lii ñu ma dénk danaa ko matal ba mat sëkk liggéey ci tëddee njaxaanaay waaye tamit jaar la ko ci respecté constitution bi ak daal di denc lépp lu nga xam ne ab secret la tukkee ci ay délibération wala ci ay vote. ci dal ak tey la kii di membre bu bees bu conseil constitutionnel bi lee occupé siège bi nga xam ne moom lañ ko jagleel jamono ji nga xam ne kii di président bi mu ngi wëyal prestation serment bu fukk ak membre sénat yu bees yi nga xam ne ñoom itam def nañu seen prestation de serment. maa ngi sama mission jaarale ko ci njaaxaanaay te duma bàyyi kenn dema influencé ci nii wala ci ne. kii di Abdoulaye Sylla nag ginnaaw bi mu doonee ab jamono politique bu tàng ak ay dossier yu metti ñeel processus électoral bi mu ngi xamle ne mission mam dina ko yeggali ci jàmm. liggéey bi nga xam ne moom lañu war a def nekkul lu yomb dana metti naam ma waaye tamit war na ñu am foo xam ci la ñuy sukkandiku ngir mën a def suñu liggéey tolloo leen népp ak li nga xam ne mooy askan wi jaar ci ay way électeur ngir ñoom tamit ñu mën a fësal seen tànneef dina am tolloole ci chance ñëpp ci képp kuy candidat ak naka loi bi tërale conseil constitutionnel ak sénat mat nañu sëkk ba tax na mën nañu woyal seenub liggéey ñeel arbitrage lépp lu jëm ci wàllum processus électoral national ci jamono ji nga xam ne nag bépp décision bi nga xam ne amal nañ ko ci wàll wi mën na am jeexital ci élection présidentielle yu ñu dëgmal ci atum 2024